mi ngi noonu jërëjëf Baye Assane Mesere euh, ni ñu koy teeti alaaji hmm. Assane Mesere dafa toog fii daal ñaawlu ak a minimiser euh, yenn yi maanaam daal jigéen gu xooj ay tànki jëkkëram hmm. ak jigéen ji peñe jëkkëram buy xëy waaw ak xeetu diwal ay gannaaw yooyu mu ni moom yu ñàkk fayda yooyu ak amul temps moom buy sangu day dem ci duus bi bomb ay tànkam waaw génn hmm. mesere mam Balla yow ma lay laaj loolu yi ndax yaa ngi ci ba léegi yaa ngi dëggal sa bopp ni loolu yi yow doo ko def waaw bëgg nga ma ci bët nag. noonu yaa maa yëpp. alaaj lii question la wala yëpp. non non wëruma laaj ñàkk fayda yooyu wëruma koo laaj. non Assane nekkul ci yooyu. yi ñàkk fayda yooyu. yow loolu ñàkk fayda yooyu kuy bañ ko ko laaj dana ko def. yow kenn mës sa xooj say tànk bomb maanaam maanaam soxna yi man su ma waxee sax kenn day mel ni leen dama ne hmm. ndax soxna yi hmm. kenn mësu cee xooj say tànk di ko defar ak a def yëf li ma la wax li ma la wax dama ne la ñoom ñaar ñëpp buñ buñ ko naa leen ko waaye danga ko daan def waaw non defal nañ ko ko mu ne leen lii teggil naa leen. loolu kay wax na ko nekkuma ci loolu de loolu la kenn ku nekk mas na ko def waa diglu rek waa diglu rek. kenn ku nekk mas na ko def benn yoon ma teggil leen. nga teggil ko jeex na. ne leen mën naa ko defal sama bopp. alaaji xaar rek li ma koy laaj. la waxoon ak laa waxoon. waaw waaw ala d'accord dama ne. waaw ak ban. waaw dama ne. ndax boobaak léegi defoo ko. nu ma koy defee moo ko defoon kay dama naan la ñaari yoon. ko la xam nga alaaji des fois man non non non ba mu taxawee fii wax la lim lay wax. mais alaaji li nga bëgg yow. loolu boobu man xam naa ne li nga may li ngay ànd ak moom yëpp di ma sës ci biir da ngaa bëgg ma montré. déedéet li ma montré. Eh, fexeel ma montré. looy montré. Assane du kafe lool. mooy du kii non non du ko kafe maman ay sang. <laughs> góor ku nit ñu lay eh, eh, sang de du ma sang de. raxas tànk nga wax Assane nee na loolu du. defal nañ ko ko benn yoon mu ne leen na dakk. teggin waaw ah noonu la leen teggin na leen na dakk laa wax. waaw na maa ko wax boobu léegi kenn defu ko. kenn du ko defati. ay ok léegi garaawul. affaire yi li ngeen bëgg du ko def waaye daal. affaire yi njàpp njaam yooyu. léegi nag affaire yow fi mu toll nii njàpp njaam raxas tànk jàpp njaam raxasang ah, waaw kon nañu tey di raxasal say tànk di nette waaye di. nga mën koo defal sa bopp. waaw jaadu sa loxo méttiwul sa tànk méttiwul da ngay gaat nga sax. bu sa loxo dee métteeg sa tànk dara di métti yooyu du ko kafe. léegi mën nañ mën léegi mën nañ dem waar wala. bu la neexee dem waar bu la neexee sax tegal vidéo. ah waaw. ah oui <laughs> léegi taxawal léegi <laughs> léegi nag léegi man ba léegi yow ban bala nga maa yóbbu ci yoon. <laughs> léegi yaa wax fii ni. waaw jox nga ma ndigal waaw. ah waaw. jeex na jox naa la ndigal. jeex na. kii de parce que yàlla laa sax. kii wóolu li ma wax leen man li ma wax dama ne la def nañ ko ñaari yoon waaw ah. ñaari yoon dañ ko def ma teggil leen ko. <laughs> non non kenn ku nekk def na ko benn yoon. ma ah, teggil leen ñaar waaw waaw waaw dégg man maa leen ko teggil ku nekk benn yoon. te bu ëstu saako bu ko defee benn yoon it ma teggil ko. waaw parce que loolu mooy yamale. waaw ku ñëw di ko def benn yoon keneen ki def yaa ci loolu ah lim lim wax loolu kañ leer ah, man ku ñëw ni da koy def dinaa bàyyi nga def ko benn yoon man la jërëjëf teggil naa la ah, si yéene àgg na mm-hmm. asu saaxo bu ñëwee fi ne nii ma bàyyi ko mu def benn yoon mm-hmm. ah, jërëjëf am loolu sax daa wóor ay ñu dax sa loxo yi ñu dagg ay we ak di joxe sa nopp ñu lay jur góor xoolal def la yi gaay <laughs> gaay <laughs> sa nopp jigéen mu lay jur góor wóor de ak ak di la ko sekkartil lan jël ay ay weñ am na weñ yoo xam ne am ki dugg di def nii di la wëral asan ah, loolu xanaa ah, yow lañ koy def weñ damay gis jigéen ñi di ko def nga naan ñun koy def yow foo kër jàmbur ñu dugal weñ ci yow tax ñu bari seen nopp yi bënn dañuy dañuy tëx <laughs> seen yi ngay nga dem ñu jël ak weñ ci ko dugal ci nopp demal jigéen ñi dañuy àgg ñuy jënd am kii nopp yaa ngi nii dañ lay jaay yi sikkarti nopp jurgóor yaa ngi nii nangam nangam man caaxaan yooyu yëpp dañ koy jaay man maa nga fa mag ñu nekkoon alaaj nag ko jox jur ko dañ koy jaay. waaw maa nga fa mag ñu nekkoon. réew mi toj na. yow fa mag ñu nekkoon. farata rek. Hmm? <laughs> luy farata. <laughs> waaw léegi rek. nekkoo ci caaxaan hmm. ma si dara. yi tubaab indi. dugal ko ci sëy yi di ko mottali ko. soxlu ma si dara naturel rek. non non man maa ngi Assane man maa euh, raxas tànk yi lim la wax leer na alaaj alaaj dinañu waxante dëgg non non non bu ko mën a déggoo li Assane li muy wax nii nekkul yooyu kat moom rek la dégg nga mën a jël ay dongo di ko rëdd ci ay ay ginn di ginn loolu koy jënd ñu koy jënd am na xam si internet bi sax lañ koy def ngay gis am na xam seen néegu sëy boo seetaanee TikTok bi gis ko ni ñuy sëyee wallaahi da ngay da sax tiit internet nga gis ak góor gu jaaxaan jëkkër jabar ji nekk di raay dënn bi naan. ka papa non kon loolu du théâtre la du théâtre fan. da tiit danga naan waaye lii nit naka la ko nit ma ne hmm. wóor na yàlla. Ah, affaire yi ëpp na lépp mi ngi si internet bi léegi. sutura amatul. moo tax Babacar Diagne moom heureusement. moom nee na na ko jomaay dimbali rek bu mu ko joxaat naraa na ko sarax na ko jomaay sarax ngir yàlla bu mu ko joxaat sénéra ndax retraité na da dafa sonn waaw moom mu ngi ah, ba daa ko joxaat daa matal ko jox <laughs> loolu mbaa ma joxaat Babacar mii ma mi ngi mel ni xam muraake ma de mm, muraake ma lay nuru ak bukki lëg lëg lëg ak loo gën a bañ <laughs> waaw bu ma ko joxaat ah, ñaan na ko de ah, bind na ko leetar sax ni ko dimbali ma rek matal naa bu ma joxaat joxal keneen d'accord léegi xool ba xam da ko fay bàyyeem déet waaye loolu war nañ see jóg waaw léegi nag euh, alaaji hmm. comme Assane moo ko wax fii hmm. jox na ma ndigal jox naa la ndigal loolu garaawul hmm. waaw léegi man man bu ñu paree dinaa la jox lancement déedéet jox ko jox ko ñi yow daal si public bi nga ko ngay jox ñi seetaan ah, man man man bul ma wax ay balancement de boo ko boo ko a joxe si public sama yoon néew man ñii ñooy sama famille non non doyu ma ko dara doyu ma ko dara xam nga nee fii laa ko la nekk. waaw ma ne la yor. kenn ku nekk raxasal na ma benn yoon ma teggi man itamit du ma trahir sama secret. loolu daa ah, ah, ah, waxee fii lañ ko waxee. waaw mais da nga yow fi toll ay jabaru Assane nga tuumal. waaw fi toll nii may gën a sës ci. <laughs> waaw. bu leerul ñoom ñaar. waaw te mën am problème si lii. waaw. <laughs> menace wala waaw lu leer la la ñu bañ maa jox. te Assane du Assane du caaxaan kat. non non xaaral alaaji. léegi nag voilà léegi li ma bëggoon am naa ko muy man damaa ñëw yëngal garab gi léegi mu wadd. lu wadd ko ah! dara dégg ko nee na lu wadd déet tax léegi xoolal mu waxut da wax mu leer. nee na ñi ma yor. waaw dinañ am problème. ah déet xanaa peut-être moom dafa jàpp ni film bu njëkk ba. vidéo yi njëkk a a def. dama ne la ah. man maa ko wax kay loolu kay tax ah, ah, nga wax ni. yow defal nañ la ko ñaari yoon wala ñett. non man loolu xaw ma man xaw loolu. mais benn yoon laal la kenn ku nekk raxasal na samay tànk man la teggil naa la lii. Mm-hmm. li njàpp njaam la mm-hmm. magum jëmm tëdd ñu fab say tànk xooj di raxas nga nekk si sa téléphone wala ngay siiñ ñàkk fayda ñuy raxas ah, jël ay musuwaar di fomp tànk yi di loqarti ay wee ah. nga ne xujj xujjaaral ah. mel na ku dara di metti man caaxaan yooyu nekkuma ci rafetul wallaay waaw mm. ku bëgg a sangu dama sa wanaag nga tàngal sa ndox sangu ba set nga mm. nga wut aw xeer jonj say tànk ba xar-xar yi deñ mm. mais ñàkk fayda bàyyi say tànk ba mu xar mënoo sa dara naan ko sama jabar dimbali ma si ñii raxas luy tànk yëpp dañuy mënu si seen tànk yi dara tànk yaa mënuñu sa dara ñu jox ko seen jabar mu dimbali leen si nañu sori kawas <laughs> wala ñu wuti ndoxum siti <laughs> sono seen jabar yi